ay ca salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna ni ñu koy faral di defee saa su fii ci télévision Futurs Médias nga xam ne ndeysaan bu altine jotee rek tuwaar kàlla bu képp si jàmm pare ca diaspora ca wàllu bitim réew bu ko defee nu daal di jàkkaarloog gars yi kaf ak ñoom foo ak ñoom reetaan ak ñoom donte nag guddi na mais teewul xam naa ne gars yi ak nuy xaar nu bégee leen ziar leen jox leen seen wàccuwaay ñaanal kullu koo xam ne bii na kilifa diine ga ak kilifay aada di leen ñaanal ci barke koo xam ne ne ndeysaan caabi da laa féete gannaaw ñi tawat ñu téye leen fa ñu ñaanal leen ci barke yonent yàlla Muhammad ñaanal kull koo xam ne yaa ngi sa biir kër ndeysaan mënoo nelaw nga toog di nu teewlu toog di nu xaar ndeysaan nuyu la jox la sa wàccuwaay sargal la di ñaan réew mi suñu borom yàlla fi def jàmm ci barke yonent yàlla Muhammad di ñaanal kull koo xam ne bii ne rek yaa ngi xëy di daw ndax jaboot di ñaanal kull koo xam ne bii ne ndeysaan yaa ngi marchand ambulant yi ndeysaan léeg-léeg sama xel day dem ci ñoom lu bari ndax ndeysaan dëkk beeg ni mu demee tuwaar kàlla dama leen di bàyyi a a a bi yaay booy yi nga xam ni bu fajar gi jotee ña ca marché ba nga xam ni 5 heures du matin la jóg wala 4 heures du matin tubaarkàlla te léeg-léeg dama koy faral di wax dama naan bala ngaa xam ndeysaan jigéen ñi li ñuy daj 4 heures du matin jot ndeysaan ba nga jaar buntu Pikine jëm ci côté marché au poisson ndeysaan nga gis ne suñu yaay yi ndeysaan kenn amul seen fay di ñaanal kul ko xamni bi yaa tok di nu tewlu di leen xamal ne seen émission dikkati na ndeysaan Touare Kalla tey ñu jakarlo tuar kala doyen na ci loxo jor bi njaay na ci côté càmmoñ ba ndeysaan chamas xamna tay xamna tournage ko xawa japp ndax fan yi dafa ne ci ay liggey xamna naa ko xawa japp jàpp coono beeg yoy day xawa metti ndeysaan di ñaanal suñu xarit bi tamit nga xamni moy mustafa Ox suñu borom feggu ko suñu borom yëkkati ko ci barke yonent yàlla Muhammad dafa amee tawet ndeysaan fan yi yëpp mu tëdd waaye ndeysaan nu koy ñaanal ox ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax yàlla na la sunu borom gaaw yëkkati ci barke yonent yàlla Muhammad ba nga dellusiwaat mën a bégal gaa yi kaf ñoom foofu ñoom réeg ñoom ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax waaw yàlla na nga jug yow dara waru waaw dara waru laa jot dara dara dara dara dara rek yow rek moom waru laa jot bu ko defee comme ni ñu ko daan defee rek comme ndeysaan guddi na te waxtu waa ngi nii dab mi ngi ngaabar ngaabar yi dem te xam naa xam nga rek gis nga xam na ni guddi na wax dëgg yàlla nun comprendre nan xam na ni guddi na mais dëggeen ni noo foog nan xaar sunu gars yi rek <laughs> ndeysaan mais xam na ni guddi na mais nag ñi ngi leen di ñaanal ñëpp di leen jox seen wàccuwaay bu ko defee nu daal dem sunu loxo nday jor bàyyi doyen ndeysaan mu daal di mm-hmm. yóg gars yi ni doyen gars yaa ngi noonu ndeysaan réew maa waaw waaw foog nu nuyu leen mën ta mën ta Babacar ñu mm-hmm. ngi lay jaajëfal bu baax di mm-hmm. uh, jaajëfal ndjay mm-hmm. vraiment uh, plaisir la bu ñu toogee uh, ñu ñatt di di di di di gërëm bu baax gaay Mustafa ak ku ci melni ne Thiamas nga xamni tay manké nañu di lañ jaajëfal bu baax baax baax waaye nama koy waxé rek liko ko de ba Sud ak ba nor ak altiere ak montagne ak cox nak sëñ Louga ak Touba Seras ak Medina Garas ak ginnaw raay ak kanam raay ak njëng mbaam mbooj di ziar baax baax waa waa ñang xaal ñang xaal Baay Faal <laughs> di ziaraat bu baax a baax a baax euh, dugg kër Cheikh Amadou Kabir Mbaye mhm. euh, comme rekk na ma ko daan euh, defee ndax saxaar bu jubee gaar nag day ko waaw waaw waaw waaw koy soxla sax <laughs> fala wa bi rahmanu najani uh-huh. kansulmati safiran aydul hudatu bihi eh, nalumunahum waramu halatul jane <laughs> bu fa digga daal ziar Mahmadan ibnu Serigne Mourtada ma nga fële ca euh, diwaanu Louga waaye di ziar bu baax a baax waa kër euh, Cheikh Oumar jël ziar bi teg ko ci loxol Cerno Cheikh mi nga xam ni fa ko ma diggoon ba léegi jugu fa baram basiruna arisun an jaddihi Omaru basiruna warisun an jadihi umaru di ko fa daal di dugg baax daal di ziar nag ki nga xam ni mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg muy Serigne Mountakha Bachir ndeysaan ndeysaan mi nga xam ni xalifa moom lañ naan père de la nation père de la nation macha allah ndeysaan jaajëfal ko bu baax a baax a baax nga xam ni moom rek la bàyyam ba newoon Seydina Mahamad maamam ja Seydina Mahamad antal karimu anal xadimu dëhran audimu fii ka sa ñu ko bamba foofu nga yem mu ni déedéet ni ko ahmaduna rahmatuna mhm. amiduna ni'matuna mhm. mahmuduna faraxtuna wala joodu musil di yami mhm. xam naa ni ca taañaañal ba du ma ca xuusandi ndax njaay am na foo xam ne war na faa mën a dugg dégg nga maam xuusandi moo tax dama koy maanaam ndar képp foofu rek ba ko nag mu taañaanal père vous avez la parole wér na ay ca kontaan ca moom bég doomi njàmbur doomi tob bi njabi gàddaa fee mbaan doomi kàndala jeeg tuuba gooy tak bello xor ndaat ak njaloor ay ca bég ca moom nuyu kull koo xam ne ma nga ca diwaanu ngumba gewul waa kër Cheikh almaxfu Chérif Ba <laughs> ndeysaan Chérif Alwali Maana Ndiaye daatum ah. kër ga toir def lu ñaaw te du ko wax te du gis ku koy wax <laughs> ay dara eh alwali Maana Ndiaye yow laa nuy bége maa la wax loolu mi sax na jànge alwali maane njaay yow laa nuy béegee ay ca mi ngi noonu nu ziar leen jox leen seen wàccuwaay ndax dama koy faral di wax gis nga boo nee bërët mhm. kilifay diine foog nga ziar leen jox leen seen wàccuwaay ndax réew mi léeg-léeg mu yëngu waaye bu nu mhm. jógee rek mhm. tubarkaal ndax xam nga xam nga li gën a garaaw mooy bu dara yëngoo rek nga dégg ñëpp nee kilifa diine yi wax waaw xam nga kon déjà ça montre que ni mhm. non ñoom ñoo fi ne mhm. ñoom ñoo fi ne dëgg la waaw ah, te bu yeboo nangu rek ñoom ñoo fi ne te ñoo fi nekk tubaarkàlla ñu ñaanal leen ñëpp ci mhm. barke yonent yàlla Muhammad ma jàll ca côté càmmoñ dem ca doomi Pikine ja doomi Caaro ja ak doomi Yëmbal ja tubaarkàlla doomi Yoof ja borom Gambi tubaarkàlla bu ko defee nag jox ko mu daal di nuyu Sénégal nuyu Gambi xale Gambi mm. asalaamaaleykum <laughs> population Sénégal <laughs> euh, maa ngi nuyu père di nuyu <laughs> doyen ay ja ay di nuyu ñi nga xamante ni ñoo seq caméra yi. <laughs> baal leen ma kaw naa wu ma mais di nuyu wax dëgg yàlla. vieux Diouf mi nga xamante ne moo nekk ci <laughs> régime ànd ak Mountaga di nuyu seen téléspectateur yi nga xamante ni ñooy jàkkaarloo ñun ñu xool neex deret gi gi tey <laughs> waaye nag <laughs> bu ngeen nuyu kilifa dina yi ah. yi nga xamante ni ñoo yor keroog mbaar mi ah. oh, waay faa ñàkk ba ñu dugg wér na wér na doye waaw nga per dafa dugg ah. nuyu xayaartu nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu xayaartu <laughs> jóge foofu ah. nga dem ci <laughs> ki nga xamante ni moom maa moo ne woon ah. biraas man baari ni biraas man yu baari sa mun man baari man maa moom moo ko waxoon waaye nag <laughs> ma jóge foofu ah. daal di dugg ci safiyatu aram bongo aram joor bu njaay biram bu jatam mooy seen baay Malik jàng bu rëy ne laaj ba kërig dara man mm-hmm. aram loo kumba caam farawaat di faat ma njoomi meesa si asamaan si farma si dama si saawaande laala nuwalu gay naa daan dama ni waral àdduna war gëp këp mënoo fee dem fu gën a riis foor ilaa teewoon kuy ba dara manaram la kuma jaame mañ benda faate benda kuma benda boo dee pare jóge Dakar daa di ni meng ila Pout génne Pout daa sarsarale continuer tuuti yaa ngi dugg Thiès boo génnee Thiès dégg nga maam fan nga cay teg ila Tiwaawoon <laughs> mumali mumali cat bay la mumali waaye kenn xalifa bu tedd bi koo koy sëriñ Babacar si sëriñ Mbay si Mansour moom la turandoom ja ne bu ma rusu woon sama baay ku ma woo ci portale ma wuyu la waaye ba ma jógee foofu damay dem ku mangewul dëgg per mu xar saara seex sandu ay dara laa ilaaha illallaah ay eh. dara karaara dama ni ñoo ay sutu Muhammad la ñu ñooñu kuñ bokkal jamono ñoo gën maa ngi saara seex sa ay dara ñoom dong la suñ borom taggewoon seen maam ja way naka la ala kooku koy maamam waaw waaw maamam mooy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee naa la kooku koy maamam dama ne koy maamam mooy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku koy maamam sun alwala maana njaay sunu waa jàngooge sunu bamu yàgg lool seen may di baawa dama ne Serif Alwali Maana Njaay Serif Saaya Aydara Serif Ba Aydara képp kuy Serif ñu ngi lay jox sa wàcc waaye bu ma jógee foo ndeysaan dama jigi nginoo njin jàmma laa yeneen samay nga yaatu na kooku mooy borom aaji boo daahi yàllaahi ni géej randul ma kooku bàyyi seen naay saa laay maam baab laay caw laay kooku mooy góor gi nga xam ni ba mu ñëwee dégg nga maam ci jamono dafa ñëw taxaw daan ni hee ñu ne amu ni woote leen wuy si leen nag ci woote bi moo ma jéenoo jéen waaye kama ni kooku sëriñu buuba nduur ma ne jéenoo mooy sëriñu mhm. abi nduur ma ne jéenoo jéen jàmmalaay dama ni boo duggee jàmmalaay mbaa yoof mbaa wakaam foofu dugg laay laay jàngay rii ma ne laay laaja dama ni kooku de nga mam la wote de nga mam dëgg rek la wote de nga mam boo nee yomb mu biir yoof gis de nga mam weexaay ba tabarkat ko koy borom yoof nak de ngi di alma de nding la dama ni boo demee nding la baa nga dem khuntuma baa nga dem te de nga mam teen ba bo fa sango foo dem say yaajo serigne Abdou Ndour serigne Bouba Ndour serigne libas la si la dama ni kooku moy gor gu tedd gu bax gi fi ci teggu maam penku bi géej sëriñ Mame laa ilaaha illallah jaa ngay riir waaye Tahirou Sarr moo jàkkaarloo ak ñoom ci ahlul bayti laay dama ni ana laayee ni jóg leen yëngu ñu yëngu ñu yëngu ci seen naa limaamu laay yonent bi moo woote woon waaye dama ni kenn du ma jógee foofu fan di jëm damay dem Kaolack ndangaan siyaare Maam Baay la ilaha illallah borom kooku nag mooy wekki weli ji kooku mooy kusës kooku nag moo dem dégg nga maam fële ca Nigéria wër adduna dégg nga maam fenn fa na mu def ko dóor borom xubbu Cheikh Tidiane xaraxa xal bi dama ne kooku ñi nga xam ne dugg woon ci l'islam ñëpp jël dugal ci l'islam <laughs> kookoy Maam Baay moom borom Kaolack ko koy bàyyi MC Niass sunu waaji borom noor faar aka baax aka gore waaye moo yaatal diinay l'islam ko koy sango leng star chéri kati kamara ko koy sango sango sango sango sango sango sango sango sango sango star ndax ko wax sama yaram day daw dama ni leng star ko koy chéri kati kamara kenn rek la doy la mooy Mame dama ne Mame Mbaye Niass balaa xam génnal ci dama jëlale la ko Espagne Allemagne États-Unis Afrique Mm-hmm. Asie Amérique foofu dugg ña nga naan mbaa maa mbaay. Mm-hmm. Serigne Fade Freddy Bango. laa ilaaha illallaah boo demee mi dina Baay boo fa duggee laay laay jàngay ri. Serigne Khady Diaw Khady Diaw fara moom laay woo borom Lac Rose. kookooy borom Kaolack kookoo yaatal diina ji ba jot. waaye bu jógee foofu fan nga jëm. <laughs> bu jógee foofu fan nga jëm foo jëmati dañuy nuyu as fay ko ku maamam waliyu ilaha illallah nga ñaari boor sa njaay maam mi nee la waliyu ba maag ba ngoogu kookoy maami asi xaas fay borom bëgg laal ndax dafa laaj la kan mooy gay na nguraan kookoy Seex da calaw Cheikh Père laaj naa la lan la jëfoon digganteem ak. Euh, Cheikh na Cheikh Saad Bou xayam nee naa Njaay. waaw kooku la Cheikh na Cheikh Saad Bou fukki ca nguraan ne ko demal man Ndar dégg naa néew ya fa nekk Touare Kalla. yu sërif ya mm-hmm. ndox maa ngay wàll jëm ca ñoom. ba mu jógee ci sërif fa lan la ca teg wàll yu mag boobu. da daal di jël yóbbu leen Nimsaat. Mm-hmm. bu ñu jógee Nimsaat fan la ñoom. ci dekkal Baylo Njaay. waaw. kooku nag moom moo ne diggante ngumba ak guraan kun fa denc sa yaram araam ma sawara ñaari kilo ma njaare ma boor so njaay boor so njaay waliyula seng dende seng dende boor so njaay ma jafañ ma njaare maami aas waaye nag du ay jëf yee du nuyu bi waaw waaw te xam fofu foofu waw mm-hmm. waaw tax mu am solo. Mm-hmm. Euh, ñi ngi jub ngalax yi de. waw waaw. <laughs> Eh, te te xam nga daaw ngalax amul. Mm-hmm. ndeysaan. te ren. deg na ñom dano préparé. waaw ngalaxi daw yi boole koog ngalaxi ren yi. manam daw bolé kula ci warona jox benn bol tay oh. dana lay indil ñaari bol sa boolub daw ak sa boolub ren. <laughs> ndaw boole. Ndiaye ndaw boole. nga yoo nag ci abe abe Jean wala abe Jacques Seck bu ko defee rek ñu wax nag ci Yeesu Christa mu sell. waaw waaw waaw. kon abe Jacques Seck. ndax ñoom ñi ngi ci seenu koor. te dafa jaag ñu mag baa ka yaarame te bëgg jullit ñe. pire loolu Yeesu Christa. Eh. aga fonk yonen be aga fonk yesu krista be sax sax lay wo way mo téye ndawi catholique yi de nga man tagat len ba nek ci gi aga be benjamin njaay ko koy ba be bu selu baange jelo islamu chrétien eh, dañ ko jël da nga mam defar ko ba danaka ñepp ben lañ billahi wallahi fo len fekk dañoo réglé am yarami teggin ci sun yoon we mm-hmm. da no bax ñom yeru mandu bëgg lu bax tay dox lu bax ku wédeli may wax xolal ci prudence wa nga xol ci pierre Silva xoolal ma père de Silva boo ko joxem póot ba mu fóotal la ba noppi ba <laughs> paase ko ba defar ko ba gome ko ba wer ko moo tax foo leen fekk mari njaago xaritoon ak ñoom ba nur ak ñoom boo gisee mari njaago bu yoree fee bu yoree feer bi ba jël ëmb bi teg ko ci bopp bi bu doxee bu nee ma ni njaago rek nga jox ko loo am <laughs> kon njaago yi maa leen di nuyu di leen wax ba ngaalu tuus ñi leen sukkandu kollem ki ñu kaa nuyu ci ñaamantoon ko ñaam jërëjëf doyen ay grand yoo fa ngay yëngu waaw fii ñëpp fi am wàll ah, ndax nee naa la benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar mhm. mhm. na gis nañ ba fi réew yëngoo mhm. tuwaarkal la ndeysaan gis leen nu àndandoo julli ñoom ñoo doon doxandoo ndeysaan di indi jàmm kon xam nga day réew moo xam ne bii ne tuwaarkal la eh, ñëpp benn la Sénégal ñëpp benn la xam nga man dama faral di wax sax naan nun danoo war a bàyyi affaire yi ethnie ethnie naan ay pël ay séeréer ay joon non non nun loolu dafa war a jeex ci sunu biir maanaam nan jàpp ne ñun ñëppi doomu aadama la waaw ñun ñëpp tuwaarkal la ay sénégalais lanu mhm. te ñun ñëpp jàmm rek nu ñor te ñun ñëpp sénégal lanu ñor mhm. waaw nan ba kon pi pël la kii lie kii lie kii lie tuwaarkal la amul amul amul amul solo amul solo li am solo rek mooy bëggante te yàlla tax te réew mi gis naa ni mhm. tuwaarkal la nii nu ko jàppoo euh, xam naa ni ndeysaan ca kanam tuuti réew mi dana neex lool. Mhm. dëgg la jàngoro jaa ngi fi ba léegi. Mhm. feebar baa ngi fi ba léegi nuy ñaan suñu boroom gën koo raxas. Mhm. suñu boroom na ko gën a raxas. ba mu set ci barke ci yàlla Muhammad gis nañ ne président ak ministère de l' intérieur. taxaw nañu artistes yi ndax daanaka ubbi na nañu waat saal yi. na nañu lépp waaye bu mu teet bu mu taxit. tubaarkàlla artistes yi ëppal. bu mu taxit waaw nu bañ a respecter les mesures barrières ndax ba léegi nii mhm. nan jàpp ne jàngoro ji des na mhm. jàngoro ji des na mhm. nanu jël matuwaay ya takk masque yi nan ko gën di farataal ba nëgëni laal ci gel yi nan ko gën di farataal ba nëgëni tubaarkàl la distanciation yi xam nga nag ci biir saal yi ndeysaan léeg-léeg am cuul yi nga tuuk ak mbëng-mbëng xam nga am Youssou Ndour mu taxaw waaw ndeysaan jollu mbeeru kooku xam nga ni nit ñi mënuñoo bañ a dajee waaw waaw waaw waaw waaw man de li ma ci li ma ci jaaxal per dégg naa ci ah. bu ma sa dégg waaw distanciation distanciation <laughs> distanciation yi par baax da ngaa bokk doyen mi nga xamante ni dugg na huit fois non déet def <laughs> mu ngi mel ni rek comme Kouthia ba mu toogee naan rajo combo scolaire. waaw. waaw moom daal distance yi. distance yi daal nañ ko respecté ba léegi. gis ndax saali ubbi nañ ko. Mhm. mais nañu bàyyi xel. que ni jàngoro jàng fi ba léegi. te tuwaar kàlla. Mhm. Euh, danoo ne ci réew moo xam ne. Mhm. danoo génn ci lu metti wax ci bu waxantee dëgg rek. danoo génn ci lu metti gis nañ ne tuwaar kàlla. Euh, Euh, am na ñoo xam ne amoon nañ liggéey mhm. seen liggéey yàqu na dëgg la tabarkàlla am na ñoo xam ne bii na dañ daan xëy di mos dara xëyatunu mos dara mhm. réew mi metti na mhm. téewul ba léegi ndeysaan ñi ngi muñ ndax xam nañ ne ay jullit lañu te natt suñu borom a koy tege natt suñu borom a koy tege kon yàlla na nu yàlla boole jàppale ñun ñëpp yàlla na nu suñu borom boole taxaw ñun ñëpp ba kenn ku ci ne ndeysaan ca fa nga nekkoon rek ca ca ca ca avant 2020 ja tubaarkàlla maanaam 2019 ak ay 2018 ak 2017 tubaarkàlla réew mi gën a doxaat ñëpp amaat jàmm marché yi mm-hmm. dimbali jaaykat yi mm-hmm. dimbali jaaykat yi mm-hmm. joxaat leen place yu baax ñu mën caa ne ba pare ñu wàññi taxi yi jaaykat yi nañ leen wàññil taxi yi mm-hmm. nañ leen wàññil taxi yi bu ñu leen mm-hmm. wàññilee taxi yi ñuy mën di mos dara di mën di yóbbu ca kër ya uh-huh. ndax loolu it danay am solo uh-huh. ndax tubaarkàlla bu réew mi xawee doy waar mm-hmm. uh, nañuy bàyyi xel ci na daal uh, moom daal doy na waar daal nun ñëpp daal nu ànd doo xam ne daal uh, metti na te metti na ñëpp ko yëg ñëpp ko yëg per doguma la yàlla bu la yàlla bu la dee dog mu nekk mu nekk lu am solo parce que boo xoolee stade yi commencé nañ ko ubbi stade uh-huh. football yi làmb ji. làmb jaa ngi ubbi ko aussi. billaay wallaay loolu yëpp. di di di ci. ndeysaan ji ubbi na. fair fair play rek fair play rek. kuy donnu ma samba jeex i gare naa ya. Urang, gen, gen. Urang, gen, gen. gen, gen. gen, gen. wallaay billaay. lamba ji nekk na de. ndeysaan. mun looge mun looge lan. ma ñaago ba nga daanu ca bongo. nga jaraañoo. donc naa. jigéen na ko moom. lay lay la la bu ko njur sa bopp. xeena bu xeeju. amul loo xamoon. wóoree. ayé. lan moo kurang kurang kurang bakin mày mày đây mày đây mày nhìn mày nhìn mò mò mò mò ai ai ai via via via mày nó đara nó rơi xuống mày nó mày nó đara tangalo mày nó đara đây sao via bạn đó via bạn đó via bạn à? nghe được phải cái gì ni set na de chikanam kuma kis

te bëgg naa oh, pëtalo te bëgg naa vie nga xoolaat boo xam ne bii ne day xaw a tar xaw a tàngaat yëpp ndax fi mu ne yaram yi ci boppam yaram yi ñoo xaw a <laughs> ñoo yaram yi ñoo xaw a loolu yaram yi ñoo xaw a sedd père xamul lu may ñaan yuusu xam naa ni yaa ñuy seetaan wóor na waaye bis boo tëggatee concert insha allah son bi bu ko kenn fecc ku dul man eh, eh. waxuma dama ci way waxuma dara de waaye naa jëg ci kaw rek fecc ko ba mu jeex tàkk wecc waaye ko ñibbi bilaay Youssou nee naa la yàgg ngaa woy waaye lépp loo mës a woy bii ma ci dàqal. bii ci dàq waaw. non bii ni may def du ko def nit bii kay Ndiaye est-ce que doone ko. waaw na tëggaat clip bi. waaw ñu tëgg ko mu defaat clip bi. ñu ñu ñu ko. waaw. Youssou waaw clip bi foog ñu jiyee ko. mari seenañ sa maam bi ko war a tëggaat. Youssou mari seenañ sa maam. Mm. waaw. na defaat clip bi te per la ñaan. waaw. lépp lu la ma sa ñaan may bañ ko. Mm-hmm. waaw. waaye clip bi dañu bëgg nga defaat ko. waaw na defaat clip bi. maanaam plan plan bi fekk bi kat ñu ko tan wala wala ñun ñu wayaat ko waaw nu sol garam bu bi per nga ñëw taasu ci biir waaw nan ko way waaw def nan ko wayaat def ko ci jamono àlla seek taasu ci biir per nga ñëw taasu ci biir lii taala de xanaa mat na waaw lii taala de bu subaa nañ dem ci Ibou Ndour waaw directeur daal yow lañ ciy déglu président ah waay sonbe yow la ñuy déglu nga jox nu feu vert nga jox nu feu vert waaw bu ko defee euh, Euh, euh, nga xam ne après Korité. waaw. mu ne bëm ci marché bi. barke yonent bi. nu def ca lan ca war a def. waaw eh, buñ ko defee. Eh, xam nga waykat yaa ngi jëlaat way yi. mu yaa ngi jëlaat way oh. way yi di way. effectivement père. mais bii buñ ko jëlaatee rek. Eh, euh, ndeysaan Ndouré Wari Mbergane nga xam ni lépp dëgg la. nee naa la moor Ah, lii buñ ko kii ba nga dugal ca la ca war a dugal. ah nee naa dañuy xam ne gars yi. ku koy def ak ku koy jëm bokk boo ca dugalee ñoom béyti mbasi mag béyti bari ndaw. la ilaha illallah. Eh, eh. ah. aywa yàlla yàlla dolli jàmm. te xam naa ni gars yi ñu ngi toog di nu teewlu. mais foog nu tàngal. foog nu tàngal ba mu tàng. beglenté gaay teeg gars yi ndax tuwaarkaal la xam nga ni du yag dara ndaysan dañuy jum ko la nga xamni moy koor te fim ne ndaysan buñ ci duggé rek xam naa ne gars yaa ngi waajal quartier général ak bagage yu sew yek mbéré mbese yek yoy ak suñu surprise bi war am mais tuwaarkaal la lepp dana doy war dana doy war ndax xam nga amna lu wara am ci télé bi lo xamné ne non ah yalla yalla na yàlla dolli ah yàlla yàlla dolli jàmm yàlla yàlla dolli jàmm xam naa daal yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ba nu teewe koog jàmm ñaanal suñu mbokki ñi nga xam ne ñooy waa jàng ñoom it dugg nañ ci ak jàmm yàlla nañ suñu borom génne jàmm ndax ñoom xam naa seen korité yàggatul li ma wax léegi rek ngalax yi tuwaar kàlla da ngalax yi moo tax gerte non moo tax gerte mënut a ñàkk ci réew mi mhm. gerte mënut a ñàkk ci réew mi waaw gerte gerte dugub mënut a ah. ñàkk ci réew mi yooyu day yoo xam ne dañ leen a war a jox cër oh. moo tax baykat yi baykat yi daal ku yabu ñaanal leen. kenn leen baykat yi. kenn fayu baykat yi ku yabu ñaanal leen gerte gi dañ koo war di bay noor di ko bay nawet. Mhm. waaw nan jàppale baykat yi ba gerte gi nu koy bay noor di ko bay nawet ndax xam nga ni bu gerte amul. bu gerte amul ah waay ngalax du am. bu dugub amul. bu dugub amul. Mhm. ngalax du mhm. moo tax wu coon sekk ween ci wéyu réew waaw bi naan baykat bi gëm na yàlla. waaw mi jël gerteem suul. <laughs> waaw góor ni ku la romb nga du waaja waaja romb la sigil sigil am daan balaago war nga mën a daan xanaa amoo loolu du waaja waaja romb be jaaw xamal ni mooy tur turu soo gisee be jaaw xamal ni mooy tur turu dee. baykat bi gëm na yàlla. mi jël gerteem suul. <laughs> waaw góor ne ku la romba. genudu wajah wajah dèjà fi mu ne xoolal yàlla xippee aljana ci ni nga ne ci ni nga ne ku gis bi jaw moy mhm. tor toru de fi mu ne gars yi sangoo xam nga <laughs> boy sango safara lu bari bi jaw <laughs> bi day gaaw a génn fi ne leer na ma ni tiit nanu <laughs> xam na tiit nañu ndeysaan ndeysaan indi ko bi waaw ndeysaan parolier rek la ndeysaan amna wayam bu may dégg bim nan naan jullee la waay billaay jàkk dem jàkk ndeysaan lu way de wuyo jàkkay nduro borom kër xoola mom njàngale non donc xale yi way na lepp dañu wara a te xam nga xam nga xam nga may lancer ben affaire gis nga artiste artiste comédien yi comédiens yi ma ma ngo ak cinéastes ak bindkat yi bindkati scénario yi après may ñu ko bindkati scénario yi mhm. nañuy jël ci wayu gaa yi genre Yankooba gi li ñuy way mhm. maanaam euh, toj ko ndeysaan def ko scénario gaa yi joué ko mais baa ngi ci réew mi waaw Yankooba Dieng kon Dior Dieng Sall bi doon yu ko fal ndax da ngay dégg euh, da ngay dégg way woo xam ni la cay ne ci biir mhm. nu risque ga muy risque xam nga loolu laay wax ci waykat yu ndaw yi léegi ma ne leen gis nga way danga koy kilip woy way danga koy kilip waaw parole yi. way li nga way. waaw dafa war a méngoo. image ba ngay wane ci da koy clip. des fois da gis ko koo xam ne ndakaaru lay way. waaw clip Bambey. <laughs> waaw. ndeysaan te du temps àndul. bi ngay way te xam nga da ngaa war a bàyyi xel kane. maanaam am na ku lay seetaan koo xam ne bii ne ay noppam déggul. <laughs> li ngay wax xamu ci dara. li ngay wax xamu ci dara mhm. maanaam ci clip bi muy xool ci lay gis xam yow mii li ngay way lan la way way nañ koy clip waay mhm. way yi nañ koy clip clip way yi nañ koy clip mooy mooy mbir mi way yi nañ koy clip waaye way way géej di génne wax dëgg yàlla volcan ah. waaw nan ah. bàyyi yooyu yéen a ngi fàttaliku nan bàyyi yooyu yéen a ngi way bi mu woyoon ak Serigne Mbaye Gueye mooy rappeur français boobu mhm. waaw bi mu naan so sa dema maa jigéen mayaa si demba maaro ngañ kumba samba njaay waaw waaw demba demba ma jigéen ma yaasi demba maaro ngañ kumba samba njaay so demba ma jigéeno ma yaasi demba maar man daala lii man yow sëriñ mbay gi Sénégal a ngi lay xaar way nañ lépp way gis nga dafa am way yoo xam ne manam xolal xolal xolal Youssou Ndour tuwaar kàlla yusu wayna lepp lépp oh. ma sha allah wayna lepp oh. ndax xam nga manam ay dafa gis nga way way bula jariñul bula jariñul non way lol du way da ngay deglu way leg leg ndaysan nga mën ca jëlé lo xamni non ca doxé rek yow kala sun borom mën na la jappalé té loolu ay rôle musicien manam deug la dañu toll ci jamono bo xamni euh, manam Euh, génération bi fi ne. des fois pour nga waxtaan pour nga euh, lancer yenn message yi. am na dafa am foo koy mën di. jaarale bi la quoi Mansour bi la ko mën di jaarale mais mais mais mais mais mais mais boo xoolee lu ci bare bari. Euh, dëgg la danga am sa nit nga way ko. loolu du fi jeex. Mhm. ndax boo xoolee ci ñoom Lat Joor ak ñoom Alburi kenn ku ci nekkoon daa am da ngaa am ku la daan dar. waaw xoola xoola xoola xoola Amady Ndiaye Samb bi mooy Amady Ndiaye Samb bi mooy ñaar dinaa ko daan. bilaay la doot Joob bilaay. kul joor ndoota fatim ngay bilaay karma sama yaa su gis jam mm-hmm. xoolal ma loolu rek bilaay wallaay loolu dafa am am na daa foor am na ndax xam nga kenn ku ci ne ci ñun ñii toog mm-hmm. xam nga kenn ku ne am nga géwalu judd waaw am na kenn ku ne am nga géwalu judd koo xam ne bu taxawee sa kanam bu nee der sa yaram daw lu ne sa poos nga man am naa géwalu judd waaw mais mais dañ cee war di boole tamit li nga xam ne bii na day jariñ maanaam nay jariñ nay jariñ maanaam boo wayee nit ki waaw indil jikkoy nit ki xam nga dafa am dafa am benn waay bu ni ma <laughs> mhm. euh, xaw ma 1985 la ma xaw ma mhm. dafa def euh, France 15 ans 15 mhm. ans 15 ans 15 ans 1 an 2 an 3 an ba muy 15 ans uh-huh. def ko France xalaatul sax Sénégal nee mu dégg morceau Youssou Ndour bi mu naan jom moytu yaay waaye fulla mooy ñi biisee dingi dingi ki dingi dingi ki dingi dingi ki dingi dingi ki dingi dingi ki dingi dingi gis nga way woo nee na ci la dem daggi bee Youssou Ndour man lay waxal billaay wallaay ñëw Sénégal loolu laa lay wax sànq nii ne la mm-hmm. way na ko écrivain yi mm-hmm. maanaam nan décortiquer way yi def koy scénario gars joué ko mm-hmm. xoolal loolu tey ku ko joué woon pièce loolu ku ko joué woon tey def ko ab téléfilm way boobu rek maanaam nga jël woy boobu rek. Mhm. Mhm. décortiquer ko ko def ko téléfilm. Mhm. loolu rek déjà lu rëy rëy la. non way wayam boo ci jël doy na téléfilm. mais mooy mooy li ma la wax. bu ko tegee ci taabal ji bind ko scénario. billaay wallaay billaay wallaay bu ko defee vie vie xoolal ñu ca wayi démb yooyu. nga may ñu ca boo xam ne day wax. maanaam way wuy wax nag laa wax way wuy wax. ay ay bu ma mayoon bu Serigne Bamba ba mu naan ba mu naan ma laa fay xanaa. nga nga nga baal ma waaye waaye dafa loo xam ne. bëgguma cee génn ba léegi. ndax nee naa la coon. Mhm. du ci génn gum. am na ci woyam yoo xamante ni nee naa la. Mhm. daf dama daf ma daan da daan yëngal sama xol. Mhm. surtout yim ci jotoon a ànd ak Serigne Mbaye Guèye rappeur boobu. bi mu naan ci nii ma rukuma waaj ma waaj ma rukuma faaj ma siree sama yàlla yalta ala gay naa ko yo sambilingeer u fee ma fariyo fariya daake wéy lu ne na nga xippee aljan non lu ne aljan ci barke yonent ñu ñaanal ko ndax ndeysaan ndeysaan na nga man ba léegi li sama problème mooy waali laa ñi laa ñeewantal ba léegi mënuma koo xool ndeysaan mais nag jàmbaar la ba léegi ñeme bugguma koo xool ndax xam naa ni bu ma ko xoolee rek jàmbaar la euh, du baax daal waaw jàmbaar la yàlla na yàlla na ko sunu borom taxaw waaw yàlla na ko sunu borom dolli taxaw moom waali barkàlla ndax ndeysaan dafa wax wax ju rafet dégg naa ko mu ne ndeysaan euh, Youssou Ndour ndeysaan waxtu wu ne daf koy woo téléphone woo téléphone di ko di ko dalal te xam nga loolu tubaarkàll reconnaissance la mhm. ndeysaan tubaarkàll ndax kenn ku ne xam ne diggante waaleeg biraan mhm, mhm. diggante waaleeg biraan kenn ku ne xam na ko tubaarkàll kon yàlla na yàlla dolli jàmm yàlla yàlla may ko xolub muñ ci barke yonent yàlla Muhammad metti na lool nag ci réew mi yëpp la metti tabarkàlla ci réew mi yëpp la metti mais nag euh, sunu borom bu soxlaa ñëpp ñàkk waa nañuy nangu loolu sunu borom bu soxlaa ñëpp ñàkk kullukum ci mënti doon it sa bis day ñëw waaw kullukum ci mënta doon sa bis day ñëw tabarkàlla te moom it xam nga la mu am rëy na tubarkàlla kenn ku ne gis na yoof nam meloon ndeysaan kenn ku ne gis na këram ñetti fan ya ba ñeenti fan ya ba juróomi fan ya nit ñi nañuy ñëweeg na ñuy demee kon tubarkàlla euh, nan ñaan rek suñu borom jàppale ci barke yonent yàlla Muhammad bu ko defee nu daal di euh, kiyaat tuuti vie deenu indil démb waaw xaw ko la ko bëgg de yow vie day tooy day vie kuy wër assassin ba agsi ci yow wàññiku. hoppatalaw. kuy wër raykat bi nit. ah séeréer kenn fayu ko agsi ci yow wàññiku. mbër lii non dañuy wax mais ngel. mbër kenn fayu ko. yéy moom séeréer. waaye di ko may di si xaa. Ah. li ci gën a garaaw. di ko may sunu booy rappeur boobu bee di si xaa. xaa. di rappeur bu mag bo xamanteni ni tuwarkal yalla yal na yàlla xaali saw yoon booy disixaa sunu jarbat sunu dom yal yalla xali saw yoon nga egal ak sax sago ndax xamna ni kuko gem nga ku ci melni ni nya di dom yof buuba nya Youssou Ndour numero 2 buuba nya Youssou Ndour numero 2 yal la yalla defal jam yal yalla xali la sa yoon na musa xali won geej ga sunu borom may ko mu xali geej ga tanam gëna sedd yal yalla xali saw yoon fa nga bëgg yegg ya fa xam yalla nga fa yegg ci barki yoonte bi buuba nya ndax gem nga ko lol gaay jàppal ne len waa Yoff ñoo war a jàppale Bouba Niang mm-hmm. monsieur le ministre ablaye Diouf sar ma la koy ñaan mm-hmm. xamna ni jambar nga kat nga mm-hmm. waye dama bëgg nga jàppaleel ma boy Bouba Niang képp ko xamanteni autorité nga ta borom doole nga nek ci yof jàppaleel Bouba Niang ndax artiste la te gëm na lu muy def amé ah, lool moy yoon di waaw njaay boo yoree am ndanan ci sa dëkk waw wala ci sa koñ dang ko wara taxaw jappalé dëgg dëgg ndax nak xam nga euh, suñu borom léeg-léeg amna lu ndénkaane la yow bu ñu la defee maire. Mhm. wala ñu def la député. Mhm. wala ñu def la ministre. Mhm. diga am na dëkk boo jóge wala am na koñ boo jóge kon ñenn ca dëkk boobu ak ca koñ boobu ca am ca la ñuy yënkatu. bu dee jigéen ña. ca wàllu association yaak wàllu affaire ya jàppale leen leen. bu dee góor ña nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu culture jàppale leen leen bu dee kay way mhm. jàppale leen leen ku mu ci mënti doon ndax loolu nag moom mooy yoon mooy yoon nag dëgg mhm. Mhm. dëgg ci buñ waxantee loo xam ne bii na tuwaarkal la boo ko xoolee da lay bir na lii yow doong mënoo koo lekk ba ba fii jógee mënoo koo jeexal loolu dafa am suñu borom dala koo da teg sa loxo yow ngir nga am ñoo xam ne bii ne da nga leen a war a taxawu taxawu leen leen xoolal yu xoolal xoolal njaga xoola njaga mu ngi ñu préparé benn série boo xamante ni nii ndax wax dëgg yàlla ñuy def série ci kër gi yëpp ñi série yi fiy daw ci tele bi yëpp njaga xam nañu ñooñu duñu seen morom ah, waaw waaw la gën a xam loolu ba tax na jël na initiative di préparer série boo xamante ne day jaw jàpp deux ans te bu keroogee gars yi dinañ xam ne ay acteur dëgg ñoo fi nekk waaw ah, loolu nit ñi ci boppam dañ ko yàgga dañ ko yàgga jooytu billaay billaay ni euh, euh, les artistes yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi waaw euh, euh, euh, vraiment gëj nañ leen a gis. Mhm. donc xam naa njaga saan loolu la gis. Mhm. ba tax mu teg foofu tànkam. lii nelaw kon kon Doura Wale Mbergane ñi ngi lay mhm. jaajëfalaat bu baax a baax. ci initiative boobu nga jël pour say artistes. kon kontaan ci lii nelaw ci nit. non du moom moo koy yee. nit lii nelaw ci moom. du moom moo koy yee. dëgg la xam nga doomu aadama boo gis rek am na lu nekk ci biiram. loo xam ne bis buñ koy yee mu jóg. dëgg la. nit du génn di wane wu naan man maa nii man maa mel nii mhm. wala man maa nekk nii mhm. déedéet mhm. ñun artistes yi ñun li ñu doon tey li tax ñu toog ci télé bii di dox di wax nit ñi di ñu seetaan ñoom nit ñi ñooñu ko def gannaaw suñu borom ñoom doomu aadama yi ndax bu leen neexoon bu ñu toogee bu gis ñu doon ni zappe waaye ñun li doon ñoom ñi toog di seetaan ñooñu ko def gannaaw ban nu ko defee kër gi nu nekk nii ñoo ñu ci jàppale di nu wone di nu génne dañu ñoom ñu ngi ci seen devoir mhm. loolu mooy wareef ba mhm. kon day jaadu mooy la ma wax rek sànq ca départ ba mhm. euh, ak fu mu ci mënti doon nga am koo fa yor muy am ci la muy yëngatu noo jàppale ko daa war taxawu ko daa war ndax xam nga xam nga man man am na yoo xam ne sax dëgg la dëgg la ndax euh, boo nekkee artiste nekk ci am réew waaw art national la national nga maanaam ñëpp la bokk maanaam par exemple tey euh, Moustapha Diop mën naa nekk Louga di meeru Louga ba mhm. organiser Louga mhm. maanaam jël am ay artistes yum jël yu jugeen yu dëkk Ndakaaru mhm. waaye bu leen jëlee yu dëkk Ndakaaru njàmbaase waale ca ña nga xam ne bii na ñoo nekk biir Louga mooy yoon si di nga wax bi ndax day am ñu nekk biir Louga ñoo xam ne par exemple tey maanaam bëgg bëgg na bëgg na noo gis am Wally Seck ñëw concert fa baax waaw mënta ñàkk ah waaw bëgg na noo gis par exemple tey am am am am saaneex ca Thiès ñëw joué fa mhm. bëgg na noo gis am tan bobbe ca Géejawaay ñëw joué fa mhm. waaye ñooñe bu nu ñëwee mhm. fekk na ne am nanu am doyen ca biir Louga am nanu am Cheikh Fall ca biir Louga am nanu am Alsane Camara ca biir Louga dañuy jël yooyu yëpp daal di boole dëgg la waaw parce que parce que loolu loolu loolu mooy mbir ma ndax ñooñu ñoo war a dalal ñooña waaw koy bàyyi kon di jaajëfal bu baax euh, Moustapha Diop ma ngay tudd léegi <laughs> maire de Louga ci liggéeyam bu rafet waaye di gërëm madame Ndiaye madame Ndiaye madame Ndiaye ku kuy ku ne a kanti madame mhm. Ndiaye bi jege bi nekk ci Moustapha mhm. Diop. Mhm. ah ok ku baax. waaw eh maa ko xam. madame Ndiaye tubaarkàlla. ku doo bëgg a gis mukk président euh, doo bëgg a eh. gis mukk ministre. Uh-huh. mu mu koñe la. Eh, eh. lantinoor la du tee diw. kon madame Ndiaye maa am na lu mu waxoon. madame Ndiaye waaye waaye di jaajëfal ci bisam bi nga xam borom le 3 ak le 4 koy waaj ca Louga borom le 3 ak le 4 avril waaj njaay na artiste yëpp mbooloo ñu dem Louga nag le 3 ak le 4 le 3 mooy tànn biir gi le 3 mooy tànn biir gi le 4 gi mooy ca terrain basket ba ah. eh, bu juppee ka nag Moustapha Diop waaw waaw waaw ah. suñ maire boobu nga xam ni tubaarkàlla lamp yaa ngay tàkk ni ràññ waaw dëkk baa ngay la ko duppee waaw la waaye tamit euh, <laughs> buñ naan jàppale sam réew mhm. dafa am ñoo xam dañ cee fës mhm. te dawuñ ci saala yaay ndeer waaw ku mel ni Ousmane Sakal Dieng. Ousmane moom mi nga xamante ni ca dëgg-dëgg. daa demoon jàngi. indi ay lijaasam. jël drapeau Sénégal. yóbbu ko fu ne ci àdduna. ci wàll Scrabble. Scrabble menn. menn. nga xamante ni ko amul xam-xam mënoo koo def. Scrabble mooy. mooy waaw. genre damier la rek. genre Scrabble xeetama rek. te am ay bind tubaab bind tubaab nee naa la ko sa bopp feesul mënoo ko. xeetu damier la kooku ko def loo woon tey bu soobee yàlla. réew mi yëpp a mën wure. nee oh, oh, oh. gis nga ci noonu per. def ci yóbbu drapeau Sénégal fu nekk ci àdduna. imaginal doomu Sénégal. waaw jóge Sénégal sàkkal gii. nga xamante ni boo rombee Louga moo am na am waaw sàkkal la jóge sàkkal gi ci Louga sàkkal gi ci Louga Ousmane Sàkkal Dieng ma ci Louga Ousmane Sàkkal Dieng foofu la dëkk sàkkal gee la dëkk moom moom moom Ousmane Sàkkal waaw daa xam ñoom ma ko du wele ma ko biram xam ñoom njaan ma de déggante nañ fi téléphone mhm. mu may mu may fàttali jamono ba nuy ànd ak yee ñoom ko du wele sàmm ma ni ko kon yow mii ndeke xam nga nu ah xam <laughs> ko yow kon kon ndeke xam nga nu waaye naa la xamal <laughs> per kuy wut gor. Mhm. jàppal Ousmane Sakkal. Mhm. waaw. kuy wut kuy fàttaliku démb. Mhm. jàppal Ousmane Sakkal. wér na kuy wut ku bëgg réewam. jàppal Ousmane Sakkal. bañ na ko ba turam daf ko sàkk daf ko dàkkantale Sakkal. waaw dëkkam gamu juddoo. yaroo fa màggee fa dem eh. jàngi andi ay diplôme delluwaat ci dëkkam. kon koku, koku koku dan ko wara sargal sa su ne moom sàkkal ga mu dëkk dañ ko sakal mu ngok waaw sakal sakal nanu ko mhm. waaw ba mom mu sakku di jaajeufal nak nag bopam sakal waaw diko jaajeufal jaajëfal <laughs> Ousmane yal na nga yeggaleeg sa sakku ci barki yonenti bi ay ja contane nan ci mom bekk ci mom ndax ni rek xam nga day faral leg leg tuar kala mhm. mhm. set nit ñu bax ñi def lu bax nga sargal leen jox leen seen way ndax nit da koy mën te defuko tuar kala te dend ak kookee te amna ño xamni bi ne lama wax sank rek rew mi na ni dimbalante na te yalla tax waaw réew mi nañuy jàppalante di dimbalante te yàlla tax ndax ndeysaan tey rek maa ngi gis ci internet bi sunu papa ja ndeysaan kàll nga xam ne bégal na réew mi yëpp bégal àdduna si yëpp ndeysaan di bàyyi ili ndeysaan mu ne ci tawat bu doy waar oh. waaw mu ne ci tawat lool wax dëgg yàlla ba gaa yi dugal ko ci internet beeg yëpp mhm. ba di ca sàkku ay ndimbal tuwarkàlla boo demee ci facebook baag yëpp gis ni ko gaa yi dugalee tubaarkàlla am na ñoo xam ne sax ña ngi koy jàppale mhm. am na bari na ñoo xam ne tubaarkàlla ñi ngi koy jàppale ñi ngi koy taxawu mhm. ndax ndeysaan tawat la te xam nga tawat moom Euh, du nit a koy teg boppam natt la sunu borom a koy teg ci doomu aadama mm-hmm. tubaarkàl la ñu koy ñaanal moom it sunu papa ji bàyyi ili mm-hmm. yàlla na la sunu borom yëkkati ci barke yonent yàlla Muhammad ndax bégal nga fi askan wu ne mm-hmm. bégal nga fi ku ne waaw bégal nga fi ku ne muy niveau national ak muy niveau international tubaarkàl la xam nga nun ñooñ dañ dañuy ñoom ñoom ñooñu xàllal yoon wi ndax ndeysaan bu may fàttaliku Kawlax euh, ca duuta door bu fa amoon ndeysaan man dong ma jóge woon côté région de Louga dem fa demee moom ak sama yaay ja ndeysaan ajaa sën tubaarkàlla booba booba mu taroon lool metti lool ba booba xam nga rek euh, nit ki buñ la xamul booba gars yi man ba may agsi euh, comme ñoom xamuñu ma euh, te xamuñu fu ma jógeet ñoom danoo jàppoon na sax ñoom booy ba ñuy bind liste pour nous jouer man sax boolewun ma ca boolewul ma sax pour ma jouer ba ñuy lim bay affaire yi bëgg a jeex waaye moom bàyyi ili ci boppam ak sama yaay ji ajaa sën billaahi barke Cheikh na Cheikh Sadd ñoom ñoo taxaw ni leen bàyyi leen ko day jouer artiste la déplacé wu na ñëw na ba fii bàyyi leen ko mu jouer mhm. billaahi barke yonent bi billaahi barke yonent bi ma wëlbati ko àndaat ak ñoom mhm. suñu yaay ji ajaa sën ak moom bàyyi ñu ànd fii ci port mhm. programme bu mag am fa ban àndee port ñu woo ma ma ñëw ma ànd ak ñoom juillet ba pare. Adja seen yëkkati kase bu am solo jox ma. ba pare may génn di bëgg a wuti oto pour dem Pikine wut oto pour dem Ngumba. mu ne ma déet xaaral comme yow nekkoon rek xaaral ma dolliwaat la. barke yonent yàlla Muhammad. non moom dafa tabe yëkkatiwaat takk bu rëy joxaat noonu la mel. kon xam nga ñoom dañuy suñu ay royuwaay ñoo xam ne bii de tuwaarkaal la bu leen dara dalee rek mhm. ndeysaan nun dañ koy yëpp waaw dañ koy yëpp kon suñu mhm. papa ji bàyyi ili mhm. yàlla na la suñu borom gaaw fëgg ci barke yonent yàlla Muhammad yàlla na la suñu borom gaaw yëkkati nga jug waaw nga jug ndax yow da war a jug mm-hmm. waaw yow da ngaa war a jug mm-hmm. yàlla la suñu borom taxaw mm-hmm. ay ca kontaan ci gaa yi bég ci ñoom bu baax a baax ko koo xam ne bii na mi ngi toog di nu teewlu nan koy waxee rek dimbalante rek waaw jàppalante rek ndax day lu jaadu jàppalante rek boo xoolee Moustapha Diop na koy defee ca Louga ah. tubaarkàlla wax dëgg yàlla nu teg ñu teg ca bët nag waaw waaw noonu noonu la ko Isaaxa Diop ca Pikine di defee eh, waaw waaw Amadou Jara Amadou Jara noon la koy eh, defee ca Pikine eh, ndóof Ndofène Fall noonu la koy defee ca ca ca ca Sika Mbaaw ndeysaan waaye Isaaxa Diop bu génnee uh-huh. Uh-huh. ba ànd ak jibisi la ndeysaan ànd ak délégation ba uh-huh. fépp fu ñu war a dimbali rek dina fa def la nga xamante ni moom la fa war a def yal na ko yàlla defal jàmm amiin waay di gërëm waa Pikine gi nga xamante ne falaa juddoo falaa yaroo falaa màgge falaa fekk baax Pikine di dëkk boo xamante ne nee naa la ay joma fa dëkk wér na nit ñu am jom nangoo liggéey lool. di leen ziar di leen jox seen cër. te di ko biral nag fu mu mënti toll ci àddina. ndax nee naa la. Euh, euh, euh, ku fàtte la la fal booy falee ko dalay bett wér na dafa pikin dañ maa fal wér na yëkkati ma ca kaw ma juddoo fa yero fa fekk fa baax waaye nag yàlla dimbali ma ba zéro fët nena la pikin zero foot la fay doxee zéro faute aw ma fa faute de ah waaw waaw a part gannaaw natti sunu borom tabaraka taala di nuyu bu baax souleyman Diallo mhm. ak la famille Diallo bu fa nek euh, euh, bi dekk fop sama sama borik. Sama mbokk lañ sax mhm. waaw mhm. waye tamit yof gi nga xamanteni ni yof ah nena naa la <laughs> mënuma fa ñak ba ñu tudd nag yoof sinon <laughs> boobu tuddu la ñu Pikine de waaw waaw <laughs> Pikine mënuma fa ñak ba ñu dugg ñu yof yof waye nak dama guma assalamu alaikum gambia banko kan hey, gambia waaw waaw hey <laughs> du suma yaay ja mm-hmm. sadio mbalo baro sadio mbalo baro eh première dame mm-hmm. maa ngi laa nuyu hey di la sargal mm-hmm. hey di la tatagal <laughs> waaye boo ñëwee foofa ah du f dadi suma jigen. f dadi suma xarit njaay li ci cukki li cukki li jiglaan jiglaan sare sare njaay al njaay bor abor dar hey bo he dañi yaakaar di nga dor dóor hey dóoruma de dama nuyoo reka rew mi rew mi sax njaay ak fi tollu ko am ko dor dor ko per ya ni doon la vie jartare rew mi tollu ni di nii no ko am ko dor dor ko bu yaa ngi doon la yaa ngi dor la ma nuyu la Tayiru Sarr. Tayiru hee ñu nuyu de. jàmme danso ko. jàmme danso nuyu. ndeysaan. mon colonel Tidiane maa la nuyu si Sengari ñar hee colonel Abdourahmane Dieye. vieux nuyu de vieux. hee. Ndiaye nuyu Po. Po Textile maa nuyu. vieux Diouf ah Kanku Cissokho maa ngi lay nuyu. ah di nuyu xaritu Kamu Ciss Kamu Ceka ku fi wax waxi Gambien ñu jaaxle wax ay. ah di nuyu Boy. waxi Gambien rek wala ñu. man kaa nuyu de. waaw. ndax Cheikh Abdoulaye Boy. waaw. dafa def loo xam ni. waaw a tax. gumi waaru waxi Gambie nga ñina fi. Cheikh Abdoulaye Boye kon gërëm naa ko. waaw man sant naa ko. waaye eh. As Jobe sila la ak a baaxu. As Jobe ndeysaan. As Jobe sila la. waaw ak père même permis bu waaw waawi Gambie moom mu génn fi moom moo présenté émission wala mu génn Amsatou Sow Sidibé suñuy xarit a nga fa Gambie suñuy xarit yu baax a nga fa tubaarkàlla Vieux Diouf mo gannaaw si tey muy def émission TFM bi danga kaa dindi nga def ci drapeau Gambie Adama Ado maa ngi laa nuyu professeur <laughs> ak Lomo du door Moodu Kara Thiam. dindi si fi Abdoulaye Boye. bés. Euh, taalibe maam baay bi nga xam ne macha allah. Euh, day koy dimbali jaami yàlla yi di ñaanal jaami yàlla yi te tax. billaay wallaay la taxawaay yàgg waaye di jërëm gërëmaat bu baax Asio Bessila. alliance pour le développement de Louga. di ko di ko jaajëfal bu baax. waaye di nag bu baax a baax sama dëkk ba. Louga war ngeen këpp aw ma seen fay. gis naa fi ngeen ma teg. Euh, wax dëgg yàlla maa ngi leen di jaajëf bu baax. di ñaan nag as ak njàmbur gañe ngeen koy gañe mitti na ma. nañ jàpp ci équipe bi dooleel ko gaa yaa ngi def lu ñu man équipe bi nañ ko taxaw équipe bi di gagné barki démb dañoo fekk ba Louga pattal ñu te loolu dafa war a man a ñàkk njàmbur kenn mosu koo fekk Louga di ko di ko gagné loolu nañ ci taxaw te lu doy waar am na ren mhm. non man xam nga lu may xam nga fi mu ne lan laay xalaat nii mhm. non bis bu gaam bi jëlee Coupe d'Afrique Sénégal lu eh. muy def <laughs> hay dana dana yéeme de. hey nee naa la Gambia mun naa gagné sa coupe du monde. Ah. dem nañ coupe d'Afrique dem na coupe d'Afrique. Eh, non bis bu ko Gambie jëlee. non rafet bi ñuy football. mais dañuy ah. football barke yonent bi. Eh. xam nga lan laa bëgg gaynde yi ngeen di jarul noo waxal ngeen defe de. bëgg ñu ñu finale. Gambie Sénégal. buñ finale ñu ñu niil kenn ko nañ jox la coupe saw damit. ndax benn lañ non problème day am. benn lañ non boobu c'est ah. finalu Gambie Sénégal. loolu benn lañ. mës naa dem Coupe d'Afrique. Mauritanie mës na dem Coupe d'Afrique. daaw non dem na bii paa. dem na bii paase la dem te yàggu fa de. bii paase la yàggu fa de waaw yàggu fa yàqu fa de. yàggu fa vie yàggu fa Mauritanie yàggu fa. Mauritanie waaw ñoom dañoo dañoo yër rek génnaat. mais mais dem nañu ren. ba pare li ma jaaxal ci équipe Gambie bi football bu rafet bi ñuy football. man mm-hmm. c'est c'est. normal parce que 8 9 2 la man bi ma gisee man man sans problème. non bi ma gisee. man sans problème bi ma jeu bi ñuy jeu nii. Mm-hmm. non Gambien yi. man sans problème mooy. Ah, mais 8-9 la seen système de jeu. Hmm. man sans problème mooy. man suñu équipe nationale bii. équipe nationale. waaw ah, man daal li ma ciy wax lenn mooy nañ boole xol yi àndandoo doon benn équipe bi ah bu gagné. bu gañee waaw waaw non vie vie bala noo tàggoo foog nu wax équipe bi équipe bi bu gañee Sénégal géppay feetu rikk waaye na ñëpp boole xol yi àndandoo doon benn ñaanal suñu gaynde yi ngir ndam man fi ñëw Sénégal bu nu àndee coupe du monde ñëw fi nañu ko yàlla tax parce que dafa loo xam dañu koy xasi partout fépp foo dem ñu ne Sénégal ba sa jël coupe d'Afrique góol bi ñu doon góolul nu mu kooku du kii du maam biram kii mooy gan gi defe naa maam biram ah. mooy gan gi ah góol gu bu bees. mooy gan gi ñëw ne xëram xëcc xale jigéen yi topp ko di estaté ko ak a soo ak a xii a <laughs> muy muy. Ah, ku xees ki waa ku xees ki waaw waaw waaw mais kooku départul keroog. départul. kii moo góolu ku góolu ku ñuul kaa góolu. ku ñuul kaa góolu man daal al mindi laa xam ak kële. waaye ki ki mujj a ñëw. xam suñu équipe nationale bii daal gis nga. Mhm. gis nga nag gis ngeen nag xaw ma bu dee yéen a may seetaan xaw ma seetaanu leen ma. Mhm. góorgóorlu leen. ngeen sagal nu nun réew mi. wax dëgg Sénégal ba mu yàgg na mhm. sarax len nu ngir yalla mhm. ngir yalla sarax len nu te léeg le gars sa dañuy wax naan yeen bu ngeen deme ci tubaab yi mhm. bu ngeen deme ci tubaab yi na ngeen fay footballé bu ngeen ñëwé ci réew mi du ngeen ko footballé <laughs> lan quel est le problème <laughs> légui lan moy problème bi wax len ko su xaalis amul amulee ngeen di kaas bu matu way matul ngeen di kaas mhm. te bu ngeen deme ci terrain ba lan la ah. quel est le problème en tout cas xamna ci lenn Uh, uh. kii di saajo maane ah. kii di Gana Gueye. waaw. kii di. nu mu Karambooj ñëwoon na. Uh, ñëw ñëwul. kii di Kalidou Koulibaly toj réewi naar gis nga gis nga joueur yooyu. Mhm. war na ñoo mën a jël lu ci ci ci monde bi man xaw ma si se passe man xaw ma la. Mhm. mais ñooñu war nañoo mën a jël ku bu ne. parce que ay joueur professionnel lañ yoo xam ni championnat yi ñu nekk. Mhm. dañ koy toj ba tubaab yi nangul leen. waaw léegi nag man li ma ciy wax mooy. na ñëpp booloo. ñaanal xale yi. ndax man nañu jël kubbi bi. man lima ci ah! lima ci amul lima yow gaay nga defé ni Ndiaye ñom est-ce que nekkul di xowante ci seen biir. ah, ah euh, gis nga. wala gis nga per jamono ji ñu. loolu nga defé na amul amul liggéeyante ci biir équipe bi. jamono ji ñu ah! tol ni il faut s'attendre à tout. nit ñi capable nañ capable xamantene ni ils sont capables de tout. Mhm. waye lima amul amoon ci doli hmm budé idrissa gane gay hmm Gueye. Mhm. Euh, damay ñew tuuti rek ci ndimbal yi nga xamantene dina dina koy def. Mhm. waaw. Idrissa Gana Gueye moom moom moom waaw yàlla rek moo ñu tiim xaw ma keneen de ndax musuma séq keneen leneen ci footballeur Sénégal yi mais ma rek xam nan ko vie vie xam nan ko Idrissa Gana Gueye Gana Gueye day faj ba faj kum xamut ndeysaan barke Muhammad Rasulullah mhm. ci alalam mhm. alal bi du nekk ay cinq cent mille ak affaire yooyu de ay millions jëm kaw sa Gana da ko ci da ciy faj ay nit mhm. ko xam ne xamoo ko xamu la mu yëkkati alalam ju bari def ca te xamoo ko xamu la mm-hmm, mm-hmm. faj la ba nga war ñibbi sa kooku maa ca teg sama bët mm-hmm. faj la ba dimbali waajur kam ka nga xamante ni mooy feebar te mosulaa gis xamoo ko xamu la kon ci sa barke liggéey boobu ngay def maa ngi ci ñaan sunu borom yal na la ci wuy si ci Coupe d'Afrique amin amin amin idi yal na fi Père Fadel Gueye maa ngi lay nuyu yal na fi yàgg lool te wér Ibrahima yal na fi yàlla yàgg lool te wér gis nga Ndiaye man ay Liverpool ak ay Paris yi mhm. mosuma leen ak xool mhm. war na noo sagal de Idrissa mhm. leen a gis xamuma leen xamuñu ma billaay mooy man mais Sénégal yi gënu doon rek tax na ay équipe yooyu léegi samay équipe lañu donc mooy li may wax sànq rek Coupe d'Afrique moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy jooy daal il est temps ko yàlla boo xoolee yi indi nañ fi basketteuses yi indi fi mm-hmm. handball la xaw ma ñii football ci tefes mm-hmm. mm-hmm. indi nañ fi waaw gisoo leen xoolal karatékaay yi ci médaille d'or yeeg ba ñun waa taekwondo ñun waa bi am na benn affaire bu ñuy préparé fan yi incha allah loo xamante ne nii te waa taekwondo yàgg nañ fi indi médaille d'or médaille bu ne indi nañ ko fi weddi wal Balla Dieng waa làmb ji yóbbu leen wax dëgg yàlla ñun daal vie maam Fatou bi yeboo mu jox ne sport à la une ndax nun nu mën di jàkkaarloog jour yi di wax ak ñoom waaw ndax nu indil nu dara ay ca bu ko defee kontaan ci ñoom ay ca wax waxtu wa dab nanu tubaarkàlla tubaarkàlla kenn ku ne xam ne ni guddi na mhm. guddi na ndeysaan mais dañ ne ndeysaan lu mu mënti ñàkkit mhm. lu mënta ñàkk foog mu am waaw waaw billaay wallaay lu mën ta ñàkk d'Afrique Scrabble mi ngi noonu Scrabble mi ngi nii de xoolal ma kii waaw waaw xoolal mooy Ousmane Sakal Dieng yëpp ak ay médailles am yàgg naa sigil Sénégal fu ne ci àdduna bi fu ne yóbbu na fa Sénégal drapeau xoolal ma médaille yi dimbali ma rek maa la koy ñaan ngir yàlla eh. xoolal ma Ousmane Sakal Dieng kii mooy Ousmane Sakal eh. Dieng xoolal ma médaille yi ñu eh. di mu am rek waaw champion d'Afrique li war xoolal ma médaille yi bi yëpp mu yàgg yàgg koo andil Sénégal hmm. Ousmane yàlla na sa jàmm yàgg ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam hmm. jërëjëf yo mu ngi nee de hmm. Ousmane Sakal jërëjëf ayca bu ko defee waxtu waa ngi dab nu ziar ko bu baax a baax Cheikh Abdou Karim Diop borom paal tubaarkàlla moom it di yori teraanga rek di dëkk ba ah. tubaarkàlla ndeysaan wax naa ko keroog ah. yàggul dara <laughs> ambulance la jënd xam nga ñooñu dañuy jar di sag di sant ambulance la jënd médicalisé Mm-hmm. boole kook ay matériel yu baree baree bari yóbbu ca hôpital ba mm-hmm. boole di jàppale jeunes yi di taxawu jeunes yi mm-hmm. di taal làmp ya football baak association yaak jàkka yaak jumaa yaak yëpp mu cay jàpp kon ñu mel noonu day jar ñu leen di sargal ayca waxtu waak ñuy dab bu ko defee doyen ana lan ngay tàggatoo waaw bi may tàggatoo rek mooy nuyuwaat sama dëkk ba bu baax a baax adugaloo gëm a fekk baax di gërëm euh, euh, Cheikh Fall Thiat di ko wax ne bis sa bés bi mhm. yàlla suñu borom def ci ndam lu rëy rëy amiin amiin waaye di nuyu Moustapha Diop maire de Louga di ko jaajëfal bu baax a baax ak madame Ndiaye mhm. di nuyu As Diop Sila mhm. alliance pour le développement de Louga ak képp koo xam ne rek yaa ngi Louga tey fi ma génn nag Fat Diop di doomu Louga nekk fële ca euh, Brioche Dorée Wakaam dëgg yàlla moo génn fi tey ñu koy jaajëfal bu baax a baax képp ku bëgg ci rek boo demee ci Brioche Dorée bi moo euh ki nga xamni mom moy mooy bitigu Fat Diop. Cheikh Abdoulaye Boy dila ziar bu baakha baakha baax euh dila di di wax xam-xam bu sel bi nga am di ci dimbali jami yalla yi yalla suñu borom eh, fajj say aaji bu baakha baakha baax di jaajeufal bu baax ñepp ñi nga xamni ñi ngi togon di ñu sétal waye yeneen it waa Ñambur de luga di leen gañe <laughs> ah ñun ñun daal problème mu gañe am na. ah doy na waar doy na waar jàmbur man fi mu ne ci dëkk bi dee leen gañe. doy na waar équipe bi doy na waar waaw di leen jaajëfal bu baax merci beaucoup. ayca jaajëf Ndiaye ati instant lan ngay tàggu. waaw waaw waaw xanaa du nuyu ki nga xamante ni mooy Cheikh VIP shop. Cheikh VIP nekk fële ca Kayraba avenue. maa ngi koy nuyu bu baax a baax Mor VIP. maa ngi lay nuyu. nekk fële ca marché Sérékunda borom téléphone yu baax ya waaye du beral nuyoo Elimane Ndiaye sama doomu ndey sama xarit Adama magai Ado mang ngi lay nuyu Seeri toulay maa ngi lay mhm. ziar bu baakha baakha baax di nuyu ke xamanteni lom o oh, tourel d'or Modou Kara Thiam borom mhm. tabakh bu sel bi mhm. kooku neena la lepp lum mu baaxul di nuyu ke xamanteni ni eh, moy eh, best mang ngi lay ziar bu baakha a baax eh, Cheikh Tidiane mi nga xamanteni moy vigile bu bop tamit maa ngi koy nuyu sama yumpaañ F Dieng fàttewu wu mala ben yon mariam fay nek fele ci etats unis maa lay ziar bu baakha ak Anti kumba Dieng mang ngi lay ziar Kor Dieng Sale bi nga ngone Yugo Fall yasin waye du beral nuyu pap Boy pap Boy Babe, dama ju Babe, Babe, asalam Babe, talibé seigne Babe. waaye du nuyu ki nga xamante ni mooy Cheikh Mbaye bu Aj Mansour Mbaye mhm. ah suma nijaay suma papa suma xarit Farba Ngom maa mhm. ngi lay nuyu bu baax a baax Lamine Manga maa ngi lay ziar mhm. di ziar képp koo xamante ni mu ngi toogoon jàkkaarloo ak ñun suñu réew mi yal fi yàlla def jam waaye Ousmane Sakal Dieng yow mi mu ma sagal yaa ma teral yaa ma jàppale du kenn du Cheikh Biram Cheikh As Biram Faye Cheikh As Biram Cheikh As Biram Faye maa ngi lay ziar mhm. di la nuyu bu baax yow sama mhm. wàllu yu la nu mu mhm. def def lu baax Cheikh As Biram Faye ak Adja Cheikh Ndeye Diagne Guèye maa ngi koy ziar bu baax a baax sama yaay jooju jërëjëf ba beneen incha allah ayca ziar ko bu baax a baax kontaan ca moom euh, la la la la fruiteria euh, Ngor Armadi Yoff en face hôpital Philippe Senghor ndeysaan ah, place Samba Kenn ba lay wax ndeysaan Samba ah, Samba Kenn sunu xarit ba mm-hmm. moom dafa bëgg saa Samba Kenn dafa bëgg saa mm-hmm. man looloo tax ma bëgg ko est-ce que xam nga te man pourtant barke yoon billaahi bi moo la waxee da naan diin mais man buñ tasewoon tey xaw ma ko mm-hmm. ak a baax billaahi xaw baax xaw ma ko billaahi xaw ma ko taalibe la non man kay dégg nga la man man ndax ndax damay gis damay gis lu baree bari hmm. euh, euh, Sanex ci boppam ak Aziz ñu di koy di koy estati di koy dugal nit ku baax di wax ci moom ay mbaax mbaaxam te xam nga ñun hmm. artistes yi ci boppam hmm. ñun boo ca bëggee kenn rek day mel ni ñëpp nga bëgg boo ca jàppee boo seetaanee sama sama clip bi <laughs> am na ci bu ma dugg di def nii di xool ci ginnaaw versi waaw laa ko def ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw euh, moo nekk fii ci wetu pont bi rek barab bu yéeme la ubbi fii maanaam lépp luy sedd waaw waaw neex rek fa la waaw billaay wallaay wala tubay ji de billaay aha. moom ci suuf gi faja shop moo fi jaar billaay wallaay waaw waaw Mouhamed la Mouhamed <laughs> temps yi defanteeg man nga jël Mouhamed temps yi defanteeg man nga jël <laughs> yow yow yow borom faja shop barke yonent bi sunu sunu bërëb ba ci kaw tubarkal la ndeysaan ci kaw awasar shop moo fi génn awasar shop awasar shop tubarkal la complexe kayitar awasar billaay wallaay sama chéri billaay wallaay ndeysaan billaay sunu xarit ba Pape Moussa Pape Moussa borom Kolobaan moom ñoom li ma ca dàll yu baax ya Pape Moussa Diop borom mbawor mbawor bu mag ma nga ca Colobane di di ko jaajëfal ah Vieux ak Abdourahmane benn baat rek laay jaan laay sànni di remercier ki nga xamante ne nii di ko féliciter muy Pape Moussa Sonko Pape Moussa Sonko moom la ñu fal directeur ballet national bu Sorano ndeysaan ndeysaan loolu rafet na Pape Moussa bàyyi ma ko doonoon ndeysaan tey ñu dem ba jox ko Pa Moussa Sonko. moo tax nit ki ko mi madame Xuma ma nga ca diwaanu Arabie Saoudite saa su ne duñu teewlu ñu xam ne bii ne nga ni di teewlu ñu dox daje incha allah prochain. ala à